bismillah sëriñ bi radiyallahu anhu wax na ne diir bi ma nekk ci géej gi yépp day ni ma daa def ci weeru wolof ni ma ko daa xame mooy dama daa def weeru wolof wu teru ma bind ko li ma ci jublu woon it mooy ñooñu ma fa nekkal di tubaab ak waa réew ma ñoom weeri tubaab yi rek lañ xam weer yi seen yoon newu ci moo tax saa bu weer teruwaan dama koy bind ngir di ko wàññi am na weeru koor woo xam ne ba mu ñëwee nag ma woor ko ba weeru jeex ba bisu korite ga ñëwee nag ma dog waaj def mboolem yi nga xam ne digle nañ ko ci bisu kor yi daal di génn ba ca pénc ma ma taxaw fa xool ndeyjoor xool càmmooñ xool sama kanam xool sama ginnaaw ba xam kenn dina ñëw ngir julli si xamoon naa ne sax kenn du ñëw nag ndax waa foofa seen xel sax newul ci yooyu ci laa taxaw nag di bëgg a tàmbulee julli julli korité bi ma demee bay taxawal ñaari gone yu jigéen ay jànq ñëw ba tolloog man taxaw di ma xool foofu fi laa kàbbaree tàmbulee julli bi ma kàbbaree rek ñu tàmbalee reetaan taxaw ci sama wet di ree fu ma kàbbaree ñu ree bu ma jàngee ñu xàqataay di ma ñaawal ak di ma fowe ma wéy ci noonu ba julli ko jeex ma sëlmal bi ma jullee ba sëlmal nag ci laa tàllal samay loxo suñ borom na ko suñ borom yow de yaa digle woon ñu woor def naa ko ni nga ko diglee woor naa ba koor gi jeex tey jii di bisub kori bima xeye mbolam yi ñu digli ci bisu kore yi ma ci man yépp def nako dogna julli ni nga xamne noné lañ ko diglé ci bisu julli lenn dal moma déssé muy génne murum koor te dama ko amut amuma ko wax deug te suma ko amone sax ñi ñu wax ne ñom lañ ko wara jox gisuma ci kenn fi ku ma ko jox kon ma ngi lay ñaan nga doli xéewal ak tawfiq sama sang ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñoñam ak i ma ngi lay ñaanit sa ndigal yépp yi ma ci mën te jëf ko nga nangul ma jëf ci yi ma ci mënu tit ngir tële ko ma ngi lay ñaan nga may ma yool ba nee na daal di bind ak xasida xasida goo xam ne mi ngi ko tàmbulee ci ala innani arju min alwaasii alxaqi bi jaahi almuqaffa naasiri alxaqi bilxaqi wax ne man kat maa ngi yaakaar ci sun boroom mu yaatu mu bari xéewal mi ci barkab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay ñaan yow suñ boroom nga dolli xéewal ak tawfiix yonent bi maa ngi lay ñaan ci barkeem nga delloo ma ci réew ma ma dellu ci sama mbokk ya daj ak sama gaaña ak sama soppe di wéy di ko ñaan ne ko maa lay ñaan nga delloo ma ci réew ma ci jàmm ma yóbbaalee xéewal te bokk ko ñi fekk xew-xew bii nag mbokk des na ci jàngee lenn ci naqar ak mettit yi nga xam ne sëriñ bi daan na jànkoonteeg moom ci biti moom mii nga xam ne kilifa gu mag la woon fii mu nekk du woon rek benn waay bu doon dox noonu waaye kilifa gu mag a mag gu yilif lu bari gu yilif ñu bari gu ñu bari wéeru ci moom gu ñu bari yaakaar moom lañu fi génne digg ba cëkk yóbbu ko foo xam ne nekku fa kennam ñu di ko def yu metti yi di ko tuutal di ko tooñ fuñ toll waaye loolu yépp nag teewul booba sunu boroom a ngi ko cee fàggul ay may ak i xéewal yoo xam bi mu mom sëriñ bi ba tek ci bëtam ci la woté né bis bi ma gennon ba dem ak ciono yoy nak li ma ci amé dal sama cantuk bop sax xeeb ko ci ba taxna ma ngi wo ñepp ñu ñew di sant la suñu borom sa bis bi dellu